bamba waay nuyoo leen Seex Bamba sëñ bamba tagg nuyoo leen mam bamba woon yaa doon yeneen doon di yeneen xale sa Allah rabbul ajalla fama xaakuna fi matqiyaay noon yaa ko génne Tuuba mu dem Mbàkke baari Jolof sandar ma sanko naan ndar ngay jaari ci Bamba ale sa Allah rabbuna jalla fama xaakula fi hatxiyawaay noon yaa ko génne Tuuba mu dem Mbàkke baari Jolof sandar ma sanko naan ndar ngay jaari ale sa Allah رب أجل فما خاكنا في لدخياي مجار ndar ajaala ndar bëgg melek baar jaanu jolof ko nata أليس أعلم وأعلم رفاخم ولا يرى حسن في الأسكياء تك أم خيول تقدم الجنة سيدنا محمد محمد هل الآتي باب التاريخ أقل صاخ كل رداء
kuy Baye Fall dugal taxaw ci góor njukkal Cheikh Ibra Fall kuy Baye Fall dugal taxaw ci góor njukkal Cheikh Ibra jóg leen njukkal Cheikh Ibra Fall doori daa
هل الآتي باب التاريخ ay guddi yoon wi أقل صاخ كل رداء بنت يوم بنت يوم Faal Njaga بنت يوم Faal Njaga doori daa
على الآتي باب التاريخ أعقل صاخ نور داي ku bëgg maam Cheikh Ibra Fall yëkkatil say baaraam nu màggal Cheikh Ibra Fall ko def gudd fan Cheikh Ibra على العتيق باب التاريخ آخر صاح كل رداء بنت يوم بنت يوم بنت يوم Faal Njaga doori daa على العتيق باب التاريخ آخر صاح كل رداء بنت يوم Faal Njaga بنت يوم Faal Njaga بنت يوم Faal Njaga doori daa على الوزير سيف البشير إن الخدير مجر الخدار إن الخدير إن الخدير الذي يا عقل ويا خير الداء ينسي البخار مصطفى كل بلياته كل بلياته محمد محمد الذي يا أخل ويا خير رداء انزل بخاي waaye sëriñ bi ku nu bind moo la man ku nu bind moo la man Ahmadou Bamba sunu waajur la di yaa ya axil wa yaa xayru ridaay insil baxaay waaye sëriñ bi ku nu bind moo la man ku nu bind moo la man Ahmadou Bamba sunu waajur la di yaa ya axil wa yaa خير الداء انزل بخاي يا سيدي كل بن معلم كل بن معلم احمد بك سنوا على الخير بيزن خراب رد المجيب ما أرتخى رد المجيب لا صحابة سوي الإجابة يوم الكابة أربس سلمان
Ababakar, Omar, Ousmane ak ana Aliou saaba yoleel lañu ñoom kat saaba yoleel lañu الصحابة سوي الإجابة يوم الكآبة أرداس السماء فنجام صبرا ويتنغ صبرا أحمد بن سنواجه على صحابة سوي الإجابة يوم الكآبة رد سنا فنجا مغفى صبرا نويت الغفى صبرا أحمد بما سنواجي مرجالو دعوهم مجالو أخطى الهلاك
ma jaaloo طلنا عين مرجالو أم جالو ولا ولا عالو أخت الهلا
ma jaaloo طلنا عين مرجالو أم جالو ولا ولا عالو أخت الهلا طلع عيني دسمها على جميع يوم غواي يوم النداء أربعة بخير أربعة بدير لباخ ميرا بدداي محمد رسول الله من سجاء وأولى الدنيا
Yeah.
Mustafa lul sujaa lul dibaa nawal dibaa terbaay Mustafa lul sujaa lul dibaa nawal dibaa terbaay Mustafa نغملكما نغمل عماد إدى الأمات بلا تفاعل إدى الأمات وعفوت وما جفوت بمن فايت سويت راي طلع غيري انا ادير بيوتني خير ما يترى فطامري لما قمري قلب الأرى بلا امتراي ولا يميل لمن يسول مع الجراي وقد جلالي يا متخالي يا خير آلي أجيب دعائي day borom màgg gi day borom xam-xam bi yaa xayra wali salli wa sallim ala al-mukallim wa dari asam asma'i ala al-mukallim ala al-mukallim ala rasulillah باب الوصول للنيل صول أمارها خرخنا خبنا يا ماما داني بنور صلاة دواما وتر سلاما العامى علي وبناء قدمون سرسارة فبني دايما أنا في خرطة في الفي كمان في الدم سنة دواما وتسلاما واذكر خلاما وبناي هاريا ناس يخبم بنونا Umar la ñëw naan daa jiite soldat bi jëloo fa diwaan si ndam salaama atul salaama wa kur khilama alayya bilawai masrikh wa maghribi بيدال بلدان نول في سمال تفا ياسل إراد ياسل إفادة خالد سعادة لبيت نواي ياسل إفادة خالد سعادة خالد سعادة ست الاهتداء ست الاقتداء إلى خناواي أمن خادم رسول خادم رسول بك جفاي بلا جفاء طيب سائي خدواي طيب سائي يا سلوجوادي كل بجودا وجل جودي فخلد آي هبلي ودادا قل المرادا يا من فادا بلا كراي هبلي برورا خرورا أتن سرورا بكل راي واذكر خلامي واذكر خلامي وامد كلامي بلا ملامي ولم تراي بلا ملامي سجد لساني سجد لساني نور جرعاني صفي أماني وسبراي سرين بيدي جيجو يالا yàlla ndax til ba mel na ñeex sëriñ ba na mbàjjey mboti bira moo di tex saatata dayra bi xuta mayra far takzi ja di man yora sëriñ si naax lañu ba may kaamil bër yëpp soxla lañu ba may kaabal خيالي من دلالي وبالهلال خلي سراي اللي دفل انقسيالي دلالي خلي حتبا تدل الكتابة وهم المتابة تسسر وقبل يا خير ربي خير مربي ربي طيب تأخل بي بعد ابتدائي يلا يا ماما يا ابن دور مدن دنا ابتدائي سلي وسلم على المتمم وكل ياسم سلده سلي وسلم على المتمم وكل ياسم سلده wàcc na gaal ga julli ca géej ga kenn amul nga ngëm gaawa talalaay ahmadul mbàkkiyu ahmadul mbàkkiyu mbàkke balla wàcc na gaal ga julli ca géej ga kenn amul gëm gëm gëm talalaay
mbooloo mi góor ak jigéen mag ak ndaw ku jóg taxaw ca kaw jaayu njukkal sëñ Tuubaa yàlla nga tàggoog tànk yu metti jóg leen taxaw ca kaw sarga sëñ Tuubaa jar na ko
waa ci na gaal ga julli ca géej ga kenn amul gëm gëm gëm talalaay
ku ko yàlla man loo làmbal addee Serigne Touba ñëw jox ko Serigne Khadim Kébé ku ko def ren duñ ko def déwén ñëw leen fii fenn fi jox ko addee Serigne Touba jar na ko
waa ci na gaal ga julli ca géej ga kenn amul gëm gëm gëm talalaay Ahmadul Mbakiyu Ahmadul Mbakiyu Baka bala dem na ba gore Dike na gore Jàng ba téere bi sama waay Dike na Dikla gore, gore dikla gore,
sëriñ bi.
di gën a gën Mbàkke Balla dem na ba gore di gën a gore jàng ma te réera bi samaay di gën a gore sëriñ bi di gën a gore xaadim jeewal jërëy naa abadar jaatew naa noonam yaala yaa seexu ba am ku bëgg sëriñ Tuuba loxo ca kaw nu màggal borom jumaa ji xaadim jeewal jërëy naa badar jaatew naa noonam yaa doona yaa seex ba am xaadim jeewal jërëy naa ba daraja teew na noonam yaa doona yaa seex ba am ahmadu mbàkke ahmadu bamba ahmadu bamba xaadim jeewal jërëy naa badar jaatew na noonam yaa daw na yaa say uxba am ahmadu banba ahmadu banba ahmadu banba ahmadu banba xaadim kenn nga doo ñaar fa yàlla may bur yaa dem ba wéer yaa say uxba am ahmadu banba bayu si ang Mustafa so masa aw ma fay taxaw war ya caka desil alay fu mu mën a doon sëriñ bi foo masa aw ma fay taxaw war ya caka desil alay fu mu mën a doon ci réew mi ak ci bitim réew ana tobe maam Serigne Touba foo masa aw ma fay taxaw war ya caka desil alay ku yëg sëñ Bamba jógal taxaw ca kaw màggal sëñ Bamba ndax lépp mooma jóg leen taxaw ca kaw màggal sëñ Tuubaa jar na ko ay ca
ban lay sa foo masa aw ma fay taxaw war ya caka desil alay fu mu mën a doon Ahmadu bayu Cheikh Moustapha fa o masa aw ma fay taxaw war ya caka desil alay ana soppe sëriñ yóbbu sëriñ mbay jaxate loxo ca kaw nu màggal sëriñ mbay jaxate ba balle sere mi nga feeñe baleen yaay kam rañe waxa samaay sëriñ bi reew mi nga feeñe ñëpp a leen di ñee ay ka ñu ràññee foo ko sa waay ale sa dem nga sarsaara naar yay siyaara doomi doomi banjara asi uxbaam loxo ca kaw nu màggal sëriñ ñëpp sëriñ bay jaxate sëriñ bay jaxate sëriñ bay jaxate balle sa dem nga sarsaara naar yay siyaara doomi doomi banjara asi uxbaam def leen ko ndànk def leen ko ndànk mag la mag la def leen ko ndànk rek mag la bu leen ko forcé mag la sëriñ bi dem nga sarsaara naar yay siyaara doomi doomi banjara yaa say uxbaam murid yi ana sabay maam Serigne Touba loxo ca kaw nu màggal Ahmadu Ahmadu Ahmadu Ahmadu Bamba Balla sa dem nga sarsaara ar yay siyaara doomi doomi maam jaara yaa say uxbaam xaadim def na fa jeewal lu ko dul siiwal badaar la teewal nun ci sama ku tax badar jóg ku tax badar jóg xam nga noo demee baayu xabaay na bi def na fa jeewal lu ko dul siiwal badaar la teewal nun ci samaay ku tax badar jóg ku tax badar jóg xam nga noo demee baalu xibaar yi nga di def na fay jeewal lu kenn dul si wax badar la teewal dun ci samaay mbooloo mi ku jug màggal sëñ mbay jaxate yal na sëñ tubaa faj sa aajo maa si leen jug tax a joxaw njaayu màggal sëñ tubaa jar na ko jug leen
waxandoo leen def na fay jeewal lu ko dul si wax badar la teewal dun ci samaay ku tax badar jóg ku tax badar jóg xam nga noo deme bàyyi ximaay na bi def naa fay jeewal lu ko dul siiwal badaar la teewal dun ci samaay yaa tax badar jóg yaa tax badar kon xam nga noo deme bàyyi ximaay na bi def naa fay jeewal lu ko dul siiwe badar la teewal nindi sawaay yaa tax badar jóg ku tax badar jóg am nga noo deme baalu xibaay na bi muy noor bi nawet nekkal fii sunu wet naane boora fekk na mar rajaa Cheikh Ahmadou Bamba Ahmadou Bamba sëriñ bi muy noor dina wet nekkal fi sunu wet naa ne boora fet na ma rajaay Cheikh Ahmadou Bamba Ahmadoul Khadim Ahmadou Mbacké candar jullem gogate dunga yagi ko magal di kare ila alay madumba wax leen jant day leer sugul duureer yow footal riir yaa sa adiyaay ahmad Ahmadu Bamba Bamba yaa kawe jant jant day leer bëggul diw reer yow foo tolle reer yaa sa adiyaay Ahmadu Bamba Ahmadul Xadim waxandu leen seexal nga ay seex may leen lu dul jeex seexal fi ay seex yaa seexu baam seex Ibra Faal maam Cerno seex Mandumbe seex Anta seex Masamba maam Mor Jaara Mbàkke seexal nga ay seex may leen lu dul jeex Seex al fay seex yaa seexu Bamba Seex Ibra Faal Maam Cerno Seex Mandumbe Seex Anta Seex Masamba Maam Mor Jaara Mbàkke na bi seexal nga ay seex may leen lu dul jeex Seex al fay seex yaa seexu Bamba sëñ Dame Abdourahmane sëñ Masamba Diop sa sëñ Adama Seex ma baabu Jóob seexal nga ay seex may leen lu dul jeex seexal fi ay seex yaa seexu baam seex Daaru Asan Njaay seex Xamsa Toog seex Saajey Mbay seex ma rubba jëy seex Mor Maana Mbay seexal nga ay seex may leen lu dul jeex seexal fi ay seex yaa seexu baam seex Isaa Jeen seex Jiiri waa daan sub Babacar Serga partir bu bu si la seexal nga ay seex may leen lu dul jeex seexal fi ay seex yaa seexu Bamba ana soppe yi sëriñ Bay Jaxate ay sëriñ si rajeeg seex Moustapha waxande del seexal nga ay seex may leen lu dul jeex seexal fi ay seex yaa seexu Bamba ana soppe yi sëriñ Bay Jaxate borom xuru Mbàkke loxo ca kaw nu màggal ko ku ko def gudd fan waxande leen seexal nga ay seex may leen lu dul jeex seexal fi ay seex yaa seexu Bamba Seex Moodu Lo Daga Seex Sura Lo Sall Maxtaar Mbay Kaare Seex Mor Cuub bi seexal nga ay seex may leen lu dul jeex seexal fi ay seex yaa seexu Bamba